samedi blabla buzz Vito Gueye dellusiwaat nañu à chaque fois ñoo leen ko waxoon chose promise chose due lay doon à chaque fois ñooy dajee fii waxtaane actualité waxtaane mbir yi nga xamante ne gis ngeen ko mu jaaxal leen léegi nag yokk nañ ci di indi ay analyste di indi ay chroniqueur di indi ay spécialistes dans leur domaine ñi nga xam ne ils vont vous permettre de ne pas être au courant de l'actualité mais de comprendre l'actualité parce qu'il y a une très grande différence entre xam ak xàmmee euh, euh, minute blabla la ñuy tàmbalee juste di mastawu euh, xale yi faatu ci géej gi fan yii nii di wax nit ñi nañu def attention parce que été bi ñëw na li ñu koy waxee saison sèche xaw ma saison des pluies waaye ñun fexe nañ ba am suñu été bopp. waaye dañu moytu te di sàmm waajur yi sàmm ndaw ñi dama bëggoon juste profité avant may présenter sama chroniqueur tey Malick Daba moo fi nekk ak benn un géant bu leen ko waxee nag gëm di war ngeen ma gëm euh, profité juste pour wan lee wax euh, plage yi nga xam ne mooy yi ñu tere pour ñu sangu ci ak yi nga xam ne digle nañu pour nit ñi dem sangu fa bokk na ci plage yi nga xam ne tere nañ leen institut Pasteur Lat Dior Abdou boo ma mënoon jox illustration bi pour nit ñi seetaan Soumbédioune université Mermoz Mamel Almadi Virage Hann Hann Parcelles Assainies unité 10 15 19 Guédiawaye Malika Rufisque Thiawlène Diokoul Kaw Thiawlène après l'ex-usine Bata Cap des Biches Mbao Diokoul euh, Kaw Bargny Minam yii nii mooy plage yi nga xam ne tere nañu nit ñi dem sangu fa damay dégg à chaque fois ñu ne nañu defal ay maître nageur nañu kii nañu jël xale yi waaye avant loolu day fekk ngeen di sangu fi nga xam ne digle nañu ngeen war fa sangu fii nag lañ digle ngeen war fa sangu mooy île de Gorée Koussoum Anse Bernard plage des enfants teeru Baye Soogi piscine Mermoz Wakam Almadies 2 Ngor île de Ngor Yoff Cambérène Diokoul Hauteur euh, cimetière Ndéppé une partie de la plage des du Cap des biche kon ñu ngi ñaan ñëpp redoubler de vigilance te euh, ñu ñaan jàmm rek di sax ci mim réew vous êtes sur Sénégal 7 Vito Gueye pour vous servir Malick Dabo maa ngi lay nuyu. waaw ma di la fay Vito di nuyu képp ki nga xam ne mi ngi toog di suivre Sénégal set di ñu suivre ci suñu plateforme yëpp que ça soit YouTube Facebook Instagram. Mm-hmm. bon comme ni nga ko waxee nag géant lañ dalal. Mm-hmm. géant de par euh, sa corpulence. Mm-hmm. waaw géant de par li mu def ci game bi koo xam ne. en 2007 mi ngi ñëw ak benn album bu ñu naan mbedd mi mbedd mi boobu mi ngi ñëw naan mbedd mi mbedd mi mbedd roode suñu suñu maay mbedd roode suñu maay après ñu jóge foofu noonu ci même album bi saa indi benn affaire bu soxor kalashnikov ni toof ni nga waaw ñu yem foofu noonu léegi après mu ñëw indi hip hop du ma sa dee juste pour continuer ci logique boobu noonu bu doon artiste boo xam ne nag suñuy tudd fu ñu waxee ci nañu wax ci histoire clash ci rap Galsen mun nañ ko tudd loolu après nañ ci xuus. Mm. léegi mi ngi jóge foofu indiwaat amet ragal du jéggi raay loolu tamit day indi toujours logique gu nit dof boobu noonu. Mm. ci benn logique boo xam ne mën nañ ne mën nañ ko jàppee koo xam ne attaquant la quoi day mm-hmm. du xaar. Mm-hmm. léegi après ñu jóge foofu noonu mi ñëw indi double album Roi d'Afrique album boo xam ne dafa indi beneen nit dof mën nañ ne. parce que mm-hmm. mi boobaa mi ngi commencé indi nit dof euh, nit dof mi ngi commencé muté ci lañ ci. côté biñ ko gën a xamee instant bi nii mooy côté activisme bi mën nañ ne mi ngi mm. ko commencé dugg ci politique bi mm. à travers euh, Pastef mm-hmm. ci Ousmane Sonko mi nga xam ne temps yi da ko utal aka bu bees mm-hmm. muy nit nit xaw ma ndax moom affaire na dina <laughs> valider loolu mm-hmm. nit nit léegi kon mën naa ne wax naa leen turam kookoy nit dof kii la borom Louga le king des stades moom la ñuy am ni biir Malick je me dis ñun euh, jeune génération bi nga xam ne ñoo ngi commencé di liifantu ci média yi wala sax di di jéem a xool suñu chemin mm-hmm. euh, bu ñu dajalee genre yi man je pense que ne <laughs> bu ñu mënul woon bu ñu mënul woon téye suñu bopp fii la ñuy ne di yuuxoo ko jooyee ko périe kon soy kon soy kon soy li waa ñu naan professionnalisme mm-hmm. oblige mm-hmm. parce que li ñuy wax ñii dañu bercé bu ñuy wax euh, hip hop Sénégal. Mhm. dafa am ñaar ñi nga xam ne dañ ci marqué seen empreinte te ba ilaa yow mi diini. Mhm. dinañ ci bokk muy Nit Doff ak Canabasse. Mhm. ñaar ñooñu moom ba. Euh, jamono di doon jamono dinañ ci jargon hip la ñu woowee. des living legends mooy des le game. te te te li ci gën a neex li def yàgguñ ci. benn dix ans lañ ñëw. Euh, presque ñoom jafe-jafe bi ñu am mooy. Euh, cogité ba def luñ mës a def. ba pare ba pare loolu mooy parce que profité dañ ci temps ndaw li ñu waroon def ci ay cinquante ans. Mm-hmm. def ko ci benn fukki at. Mm-hmm. ba pare problème li si pour man li si gën a important mooy. Mm-hmm. dañ révolutionné li nga xam ne carrément mooy. musique rap carrément. Euh, ci côté musicalité côté texte côté vidéo côté lépp. kon. Euh, donc chers chers téléspectateurs chers internautes. on vous présente. nit dof killer. killer killer in the house. yeah jaajëf jaajëf jaajëf Vito jaajëf moom frère Malick. Mm-hmm. maa ngi nuyu Sénégal 7 ak ñu ñuy seetaan ñëpp. Mm-hmm. Eh, di kontaan ñëw fii. Mm-hmm. Eh, def ak yéen eh, échange bii nii. et di kontaan ci présentation bi aussi. fait plaisir. et euh, nu nga ko waxee rek. si euh, quatorze ans yi weesu aussi. Mhm. ñëw nañ on a essayé on a posé pas mal de de pas yoo xam si c'est salué par mouvement bi ñu nekk. Mhm. et comme ni ko fi Vito waxee aussi c'est au-delà de ça suñu engagement aussi euh, mmh. citoyen en tout cas patriotique. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee aussi Malick. Euh, dafa jël plus dañ ko gën a accentuer. si at yu mujj yi nii. donc c'est une suite logique aussi de képp ku doon suivre nit daf depuis 2007. avec tous les combats yi fi jaar. après euh, tey jii nii ñu bëri dinañ mën a comprendre le pourquoi de peut-être plus ñuy dem plus yaay benn activisme mm. en tout benn engagement bu jël plus parfois sax le dessus sur l'artiste mm-hmm. et euh, puis voilà quoi donc ni ngeen ko présenté ça fait plaisir te noonu la mm-hmm. demee quoi mm-hmm. ça fait plaisir ñun tamit toog ak plateau mais casquette yi nga wax bokk na ci casquette analyste analyste bi nga xam ne actualité boo dégloo nit dof mu décortiquer actualité di nga ci jëlee yu bëri loolu nag moo tax bi ñu ko tegee fii comme blabla buzz tam concept bi actualité avant ñuy ñëw ci vie wu artiste bi nga xam ne dina leen intéressé. Mhm. on va commencer par lactualité actualité euh, te mënuñoo wax actualité te tudduñu capitaine Touré. Mhm. Euh, capitaine Touré ñu jékki-jékki ñu ne dañu ko raje ni ñu ko waxee ñoom radié des cadres de la gendarmerie euh, te capitaine Touré ñu tapi capitaine Touré. Mm-hmm. ñu nemmeeku ko woon ci euh, problème yi ñu amoon côté 8 mars bi affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Mm-hmm. ñu ñëw mu génn def sortie ba dem Touba def beneen sortie seetaan ñëpp seetaan ko ñu jékki-jékki démb ñu ne on a radié. capitaine Touré boobu noonu nit dof sa analyse ak sa gis-gis ak sa euh, gis-gis ci actualité bi mhm. Mhm. waaw lu ma njëkk def sax mooy euh, damay saluer euh, honneur am honneur bi moom ak respect bi moo de notre drapeau mhm. parce qu'il avait prêté serment et la il a donné benn leçon bu mag a mag pour génération bi ak génération yu yu war a ñëw mooy il faut garder son honneur quand tu de ne damay def sama liggéey garder sama honneur respecter sama drapeau. Euh, devant les faits établis foofu lañ koy xamee. et c'est quelqu'un boo xamante si nii fu mu nekkoon yëpp dañ ko doon tàccu ndax xarañ bu mu xarañoon donc euh, lu may njëkk def rek mooy face à une situation. il pouvait trahir se convictions, son honneur, euh, son métier, son drapeau. pour mën a peut-être euh, am ay faveur wala pour mën continuer sa carrière mm-hmm. mais il fait le choix de mm-hmm. l'honneur et loolu dama koy saluer e je pense que peuple sénégalais bi yëpp la et leçon bu mag a mag a mag a mag la jox bépp sénégalais ak ci secteur bu ta nekk mhm. et même soo waree ñàkk lépp nga des ak yàlla aussi il faut avoir ce courage la c'est pas facile nag mhm. parce que la tentation elle est là la pression elle est là elle mhm. peut être familiale elle peut être euh, voilà euh, de manière personnelle tu peux penser à ton avenir toute cette peur qui est là il faut vraiment nga am ngëm yàlla dëgg force de conviction pour que yu mel ni présenté wu nga garder sa dignité man loolu laa ci jàng loolu laay saluer vraiment. après le fekk ñu radier ko c'est normal. parce que on est dans un pays boo xamante si nii on fait la promo de la médiocrité. donc su fekkoon ne moom dañ ko saluer tappat ko ndomb tànk. wan ko ko ni yow daal jàmbaar nga te que ñu bëri dañu war a def ne yow bu boobaa la ñuy jaaxle ñun. parce qu'on dira que ni ah on est dans le normal. dans un pays normal. les gens yu def des sacrifices gëm seen bopp dëggal seen bopp seen liggéey dañ leen di takkal gratte dañ leen di Euh, adulé dañ leen di présenter comme ay héros pour que nit ñi jàng ci ñoom mhm. mais comme on est dans un pays où il faut tricher il faut être complice mhm. il faut marcher sur, sur des magouilles mhm. il ne faut jamais faire preuve de dignité d'honneur et de nangam sangam bu ñu gisee ku ko def ñu dàq ko dañ naan ah la daan xew ci jamono yi mooy les braves sénégalais yu gëm seen réew gëm seen liggéey di ko def ci yoon dañ leen di punir amaat na donc du nekk lu bees donc dàq bi ko dàq ñoom ci logique bi ñu plongé mooy moo waral dàq bi ñu ko dàq tey mooy logique wu on est dans un pays où tu es complice avec nous tu marches dans nos combines da ngay euh, fàtte say principe ñu bàyyi la adulé la et voire même yokk say grade te gis nañ ko ci nit yu ñu fal récemment ak li ñu dégg ci ñoom lépp def naa ci am réew mu mel ne Sénégal mhm. li ñu dégg ci nit yooyu noonu mhm. waruñu woon takkal ndomba tànk nit yu mel noonu mhm. mais comme tu veux la promotion de la médiocrité quand tu euh, jël promotion di ko jox ay nit yoo xamante si nii tudd nañ leen ci ay euh, ay euh, cour de comptes topp na leen ba tudd leen. Mm-hmm. nga jël nit yooyu yokk seen domb tànk yóbbu leen ci enseignement supérieur. Mm-hmm. soo jëlaatee des gens yoo xamante si nii ci secteur clé yu nekk tudd nañ leen ci corruption yu grave. te ñoom suñu porter plainte mosuñu porter plainte diffamation wala yu ne mel mm-hmm. nga jëlaat ñu mel noonu nga promotionner leen kon cela veut dire ce que cela veut dire mm-hmm. on est dans un pays où quand tu fais quand tu dans dans dans mm-hmm. di def naka sudul noonu dañ lay promotionner mais quand tu essayes de respecter ton travail de respecter ton pays jaar la ko ci yoon dañ lay punir loolu c'est un signal fort boo xam ne suñuy njiit yi loolu la ñu wan à travers Euh, euh, nu la tudd capitaine Touré mm-hmm. ak ñeneen ñoo xam ne jot nañ leen fi radier donc lool laa ci jàng et man rek ma koy saluer encore une fois comme ni ko mm-hmm. Sénégal yëpp defee mm-hmm. di ko wax mu des ak yàlla qu'il soit endurant confiance parce que bu amul woon ngëm boobu du jël posture bi mu jël nii donc en tout cas maay saluer euh, patriotisme am ngëm yàlla am dignité am honneur am maa ngi koy saluer bu baax a baax quoi pour rappeler radiation bi man dem bi ma déggee radiation je pensais tout simplement que dañoo nangu tenue bi mu sol mu bokkatul bokkatul ci laa bëggoon ñëw sax bokkatul ci xam nga déjà moom moom déjà radiation bi am na mhm. parce que mais dañ ko radier ci cadre yi mhm. mais le capitaine Touré reste toujours dans et toujours dans la gendarmerie mhm. mais c'est que lii graaw mooy xam nga nga doonoon cadre yow xam nga armée ni muy demee yow nga doon tam élément ma lay jiite donc suñ la radier yow yow suñ la wàccee ba ci suuf loolu humil loolu humiliation loolu ci biir armée quoi déjà capitaine Touré ma ci xalaat ah, moom xam na moom moo xam lu tax mu def choix bi nii. Mm-hmm. waaw parce que tamit moom parce que moom tamit bi muy bi muy def lii moom xamoon na ne carrément que lii tamit moom mënoon na ci am. Mhm. donc su defee lii moom peut-être il moom am na ay comment dirais-je am na fu mu ko wéer carrément mhm. lu moo jaral na ko moom mu sacrifier peut-être mhm. euh, carrière am parce que déjà su ma juumul déggoon naa que ne il avait dafa démissionné woon xaw ma lu mu mujjee nag waaw ba après ma dégg ci ay radiation affaire yooyu mais en tout cas c'est un boo xam ne moom def na ko te man nit tuy def genre yi am na fenn foo xam ne carrément jàpp na ne seet normal wala c' est fenn foo xam ne. Mhm. c' est légitime. Mhm. lu légitime moo tax mu def ko. donc man loolu laa am loo xam ne peut-être lu ma ci lu ma ciy wax parce que man xaw ma carrément lu fond du dossier. Mhm. lu tax capitaine Touré def loolu mais. su fekkee da ko def pour sauver gendarmerie. man pour man il a bien agi. waaw mhm. après nag radiation yi loolu da ciy bii moom actualité bi nga xamante ne yaakaar naa ne c'est pas aujourd'hui la dernière fois qu'on va en parler dinañ ci waxaat. Mhm. incha allah parce que euh, d'après ce qu'on m'a expliqué. dañu mhm. ne léegi dañ ko yóbbu ci grade simple. simple soldat la. te bu demut liggéeyi mun nañ ko topp encore pour abandon de post waaw te buñ ko toppee ci abandon de post boobu tamit yeneen affaire mun na ko cee dal mhm. léegi moo nekk ñu ne humiliation lay doon wala peut-être euh, on on je laisse au chat ñu ñu ñu xool fan lay mujjee mhm.